bis bu mag bi nga xam ni moom la ñu jagleel kii di docteur Aïda Mbodj ngir fal ko euh, Linguère bu famille Mbodj amaloon nañ ko ñeenti fan ci weeru février bi ñu nekk foofu ca stadium municipal bu Bambey ci fukki waxtu ak benn bi mu jotee kii di honorable Aïda Mbodj daal dina yëg si nag ci stade ba ci kanamu mbooloo mu baree bari ci mbooloo moom nag ñu ràññee ci ay kilifa diine kilifa aada ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci langue politique gi rawatina ci opposition bi ku ci mel ni Ousmane Sonko xalifa Sall Malick Gakou Jacques Habib Sy nga xam ni nekkoon na fi jëwriñ ci nguurug Ablaye Wade ak Ahmed Aidara ak yeneen kilifa yoo xamante ni ji teew nañu ngir àndal sargale ki nga xam ni rek mooy seen natango bi di docteur Aïda Mbodj ci wàllum palum cosaan ak aada ràññee nañ fa ki nga xam ni mooy teewaay buur siin ak ki nga xam ni mooy Pala Mbeng daal di fay teewal ñii di communauté Lébu mu nekk événement boo xam ne ji événement bu am solo la ci ngir dekkal li nga xam ni mooy cosaan ba tax na rek kii di euh, docteur Aïda mboj mbooloo mu pari ci kanamu kilifa yi ñu daal di ànd sargal ko fal ko nag li nga xam ni mooy lingeer bu famille Mbodj. waaw waaw. Nous initié cet événement pour célébrer une femme dont le leadership est affirmé par ses états de service au plan étatique avec 15 ans d'expérience parlementaire au plan social et au plan familial elle a eu un parcours politique irréprochable. Aïda entretient avec finesse ses relations avec la classe politique. Elle est née Liguerre et elle agit en Liguerre. Nous remercions nous nous tous les chefs religieux. gannaaw ba nga xamanteni ji ki di docteur Aïda Mbodj ay mbokkam yépp boole nañu dal di koy tab def ko lingeeru fami Mbodjeen ki nga xamni ne moy palambeng teewaloon fa communauté lébu moom nag yëkkati ay kàddu jëmale ci njariñ li nga xam ni cosaan am na ko ci dundunu doom aadama. nga xool bokkam yu baax yi ko takkal ko liñ ko takkal ku ne war naa dellu sa aada cosaan réew nu delloo si suñuy dana defar suñu dana tax ñu am. ay valeur am ay jomba jomba am ay bañ-bañ ak day bëgg-bëgg boo teewul say valeur rek naa ñëpp a yem ñëpp a yem koy dawoo koy wax. ci wàllu xumbeel tamit ñi nga xam ni ñooy e, yëngatu ci wàllu aada cosaan ci way ak fecc teewoon nañ fa ku ci mel ni e, Kouthia di humoriste comédien e, bu TFM ak Mati Thiam Dogo waaye tamit turu bu naar yi nga xam ni ñoom it nga bàyyi ko ba gànnaar ak ñi nga xam ni ñooy suñu mbokk joolaa yi nga xam ni ñoom it andi woon nañu seen bale daal di gën a dëgëral li nga xam ne rek mooy sargal bi mbooloo ma fa teewoon rawatina kilifa yi ñoom ñëpp kontaan nañu ci li nga xam ni rek mooy Sénégal am miniature maanaam ñoom ñëpp ñu booloo nekk benn ci waso bu mu mënti doon. waxtu jotee ci ngoon gi nag kii nga xam ni mooy euh, lingeer bu famille Mbodj di docteur Aïda Mbodj moom nag daal ne jël kàddu e, daal di koy jëmale ci kilifa yi sant leen gërëm leen ak euh, mboolem ay mbokkam ak ñi fa ngir e, sargal ko ci bés bi ñoom ñépp e, jotal na leen ay kàddu cant ak gërëm. jigéen nañ koo sagal mën nañ koo suturaal dafa service dafa taxawaayam ci bokkam maa ngi nuyu nuyu góor jooju di nuyu buur Kajaan di nuyu buur Siin bu ma di nuyu buur Siin Ndoxabaan di nuyu Paala Mbengue bi fi jógee léegi maa ngi nuyu sama kër ndey te ki ko jiite di Alaaji Pambooj taw bi jàllewul bii ba léegi naa ko aram soxna ba des baa ma ni ko faral ni ngi tañ soxna yaa ko naa loo gànne sa jabar ni loolu topp sa jabar njaboot gi yëpp ñëw bi soo dee ñëw Mbaye Mbooj mu ndox ma j'espère que gisanteeg yow ndax sa mbokk la ngeen jëflante lu baax bu bëggoon a gisanteeg yow depuis mariage ma mi Mbaye ba léegi mu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu ngi nuyu mbokk yi jóge doomu bu ma demee Fuuta damay mel ni buur ñu ngi nuyu mbokk yi jóge Ngoreel ñu ngi nuyu mbokk yi jóge Gàmbi Maya Mbooj ak ñi mu ànd ñu ngi nuyu mbokk yi jóge Mauritanie ñoom moom Dakar Mbooj ñu ngi nuyu waa Louga yëpp ay sat arasile ngir ko laa daan naaw ñoom ama kasum ñoom ñëpp a ngi ci délégation ñoom gànnaay ñoom ñëpp ñoo leen ñoom ñëpp gis naa leen muy groupe bi nga xam ne moom moo ngeen di yeneen groupe ñëpp muy la di nuyu di toog di teg ma ne leen lii de ku ko bëggoon ci Bambey doo ko mën soo ko bëggoon di doo ko mën di toog ay tonu ceeb di teg ay mbalam loolu ku ko bëggoon ci Bambey doo ko mën waa Bambey yàlla ma leen yàlla sax délégation yi fi ñëw yëpp maa ngi leen di gën ci damay beral ngërëm Youssou Ndour Youssou Ndour dafa woo buuba daal di koy responsabilisé xam nga ne équipe a ngi fi ndax ñu ngi liggéey baabu dëgg waaye dafa yebal beneen équipe Modou Fall jiite ko mu ñëw ne ko bu leen dara rëcc ci événement dafa jàpp nag ni culture bi mu bëgg moo tax mu def loolu c'est un homme de culture dama voyagé benn directeur bi ma yoree président sous commission culture et communication directeur bi ni ma nga doon ministre de la culture mooy Youssou Ndour parce que dafa bëgg dugg maa ngi leen di wax ni leen lii may incarné ba samay bopp distingué ma jox ko distinction bii maa ngi war na opinion nationale et internationale que ci loolu ngeen ne ak ne luy acculturation da ngeen bëgg toujours seen ancrage ngeen di ko def ci suñuy valeur yi nga xam ne mooy lu gën a cher nit nag su fekkee ne xam na fa mu bopp day ngi sant mu yàlla boole leen gërëm. yooyu nga xam ni jëmale na ko ci mbooloo mi rawatina kilifa yi nga xam ni ñoo fa teewoon bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ba bitim réew kii di docteur Aïda Mbodj nag si la daal di dellu këram ngir continuer di saafonte ak mbooloo mu tokk mi nga xam ni ñëwoon nañu ngir sargale ci bés bi.